ànd wala mënuñu ànd ñu daal di ànd kii jël la ngay xale bu ndaw mhm. mu jox la sa gëdd mhm. temps yooyu laabaan suba teel amoon na teg la sa cër mhm. gis ñu samp ndënd mi géwal bi jël ndënd mi suba teel ah. oto bi ni pii eh, papa sa borom kër moo lay jël xale bu ndaw ba pare tëdd ci sa kaw jooy xam ne xale la jël. Oh, wallaahi moo tax ma ne leen def naa ko vidéo bari ki démb wallaahi gis naa ko jël jigéen tay tay tay moon mm-hmm. ci moom tay tay c'est faux xale bu ndaw. c'est très rare mm-hmm. c'est faux amul. dëgg la dëgg la. su boobaa boo gisee xale bu jigéen bi ngay xam ne kii xale la. Mm-hmm. sa jëkkër jiital laa ki mbokkam sa bàjjana lay sang mhm. jox la sa borom kër buñ paree jiital la kenn du la wër lu bokk sa yaay du la jege parce que mu jege la sax ñu ne kii dañ koo fon dañ ko mel ndaw gi sa yaay sa bàjjan mhm. gis nga bàjjan ñu génn ci sëy yi mhm. lu mooy bàyyi bàjjan mooy bàyyi bu ah, ak yëfu traditionnel yi sax waaw tout à fait su boobaa géwél yi daan tëgg sabar dañ daan déglu suba googu taj gin rëng rëng rëng rëng wallaahi booba woote nañu boobaa ndënd bi foor waaw talmat bi lay jël barki rasulaay dara du ci riimew du diis hmm. bu ko defee géyoo ba sar xolle hmm. tarkal la xale bi kontaan ay moroomam kontaan ndékki li nga sama kër yow hmm. da koy fay jom jooju la lay yokk lii moom jar na téye sa bopp dëgg la de da lay may courage dëgg la damay téye sama bopp pour ëllëg ma tam ma am lii wallaahi dëgg la tas tasar mais tas ki ci jigéen ñi la gën a metti maa la ko wax ndax li yàqu ci ñoom la ne. Mm-hmm. exactement. mais lu lu yombalal léegi tas yi yaay booy. lu yombalal tas yi dafa bari. Mm-hmm. parce que ñun suñuy jamono bëgg-bëgg yi bariwul woon. Mm-hmm. léegi nag bëgg-bëgg yi bari na. est-ce que du tam dañu def suñu jëkkër yi ay morom. maa ma ñëw rek bëgg-bëgg bari na. xale yi. munoo yar doom tey tey tey. xaar ba tey mu bëgg sëy nga bëgg ko jàngal tey sëy. munul nekk déedéet. dégg naa dëgg dégg naa dëgg. sëy da nga koy travail sa doom. doom bu jigéen yaay day wax ak moom. anytime waay. il faut nga toog di wax ak sa doom gis nga doom am na conseil yoo ko jox ci boppam. da koy dugal dëggantaan yaa ngi dégg mhm. te lu mu téewee sëy da koy xam. Mhm. parce que sol nañ ko ko démb. démb ñun géwal nag loolu mooy suñu problème. Mhm. ñun 10 ans. commencé nañ laa jàngal. te yaay du la rus. waaw lay wax parce que doom bu jigéen fi nga jaar yow fa la jëm si mm-hmm. oh. amul loo koy war a jomba wax mm-hmm. da nga koy bàkk mm-hmm. xamal fi nga bokk sa papa nii la man mi fii laa bokk damaa ragal gàcce boo defee nii tam ma jaara fii dee ba faaw xam nga doom daa bëgg ndayam bu la nee jaral na ma sama bakkan da jaral nga wootu jooju mooy aar da lay waaw da nga koy bàkk doom jigéen da nga koy bàkk di waxtaan ak moom bañ a def kees seen diggante surtout parce que tamit lii yaay dañ ci jouer bu baax yaay yu ci bari dañoo dund tubaab bi di toro ñun dañoo wàcc suñu ànd uh-huh. ànd ba ñu def nag fa lañ fekk boroom mais jéego uh-huh. jego léegi comme fi mu waxee nii léegi xale yi léegi en fait euh, seen yaay yi dañ leen tàmbal lu yomb loo xam ne tey euh, surveiller tuñ leen uh-huh. conseiller tuñ leen ba tax na tey xale yi léegi amatuñu heure pour toog ci kër yi te yaay yi amatuñu temps aussi pour mën a superviser xale yi yaay day tëral waaw muy nelaw suba ba ngoon nga sumb fóot toggal ko jox ko mu lekk muy diw yaramam ba mu nooy nelaw bu guddi mu jug taxaw dara du ko war ci kër gi. dëgg la boobu la jamono tas. Mhm. xale bu jigéen boo ca gis ma nga pause. dëgg la de waaw monté en. <laughs> def lii waaw xef ya xef muy wëndeelu. waaw yaa ngi dégg sa yaay aj la ca kaw. Mhm. sa yaay ngi lay rey. dëgg la coono bu rëy jural ndax ku la takk munoo togg munoo fóot munoo bale noo raxas. lu lay doyee dëggantaan dara. jigéen dafa am loo xam ne daf ko moom ci biir néegam. Mhm. loo am am ku loo ko defal sa biiru jëkkër bu la ci kenn jiitu. dëggantaan xale yi déglu leen déglu leen liggéey ci këram ba góor jël karpem jox ko compte bancaire am jox ko ubbil ko léppam yow yaa koy def mënu ñoo fex ba ma ànd ak góor jigéen ma ànd ak ñoom parce que damay conseil pour ngay sëy kon mënu ma naan leen kaa leen sëy neex ñoom ci ñoom laay dal ba koro may am li ma bëgg moo jo daguma la da dama gis ñaar ñuy sëy di dem ba ci biir di sëy di sëy di sëy sëy bi neex alors euh, Sophia copine faala exemple ma joxe ko sama bopp. man ci biir euh, sëy bi may sëy ak sama jabar aw ma ci satisfaction ma gis Sofia euh, euh, relation bi mu am ak sama jabar di ko conseillé di ko conseillé te la mu koy conseillé sama jabar du def loolu. àdduna di dox ma tourné takk Sofia. loolu est-ce que man na nekk. mën na nekk. ndax lan foo ko teg. mais xamal tax xamal tax mais man Sofia su doon man Sofia moom bu ko mara naan tax mukk da nga naan potit xam nga tamit mooy mbir mi. Mhm. sa jëkkër. dëgg naa dëgg boo ko këmm kaayee nii. dëgg la Sofia du ci am. du xool keneen loolu moom am na moom. am nga lii base du bi. Mhm. déglu leen. mooy góor moo bëgg lu neex déglu leen Boja Mbaye waay. surtout man exemple lu neex. déglu leen Boja neexaay bi déglu ma tuuti. ay science bi du ci seqanteeg sama jabar rek. neexaay bi mi ngi ci joxe lekk bi neexaay bi mi ngi ci adorable bi neexaay bi mi ngi ci na ngay tegee ànd bi. neexaay bi mi ci na ngay defee say say nocc say jaljalil say say jay say ñafal dañu. déedéet déedéet tuuraay yooyu nga xam ne bu ñu la ko doole doo waay bàyyi ma waay yeggalil neexaay bi nga ni noo ko gën a noo ko gën a mën a wax. jéego ko mhm. sa bopp. Mhm. dama lay xool ndax kiif nga moo tax ma la boo koy xool ni ngay mhm. da ngay biiju da ngay biiju ngay biiju da ngay biiju dafa am regard boo xam moom ngay xoole sa borom ma lay xoolee bokkut ak bi may xoole kii dama da koy bàkk day feeñ dégg naa même boo koy tegal sax am na noo koy tege moo tax man la taggaate yi xale yaa ngi sëy te xamuñ seen i borom kër dëgg la bañ a rëy ci seen jëkk ah jigéen du rëy déedéet soo xasee ba sëy mhm. pare nga ah. yow amatoo fenn soxla sa borom kër nga war a visé moo la war a ñor ah. parce que doom ju baax du ay caaxaan allahu akbar de gërëm fa doom ju moo koy jur mm-hmm. il faut nga gëm sa bopp mm-hmm. sa xol bi toj mm-hmm. moo tax bu sa xol bonee mënoo jonge mënoo sëy oote leen ubbi nañu antenne bi ah numéro yaa ngi affiché participer leen c'est très boo rëyee mënoo sëy waaw soo nayee lool mënoo sëy boo yaradukuwee mënoo sëy soo ñàkkee kersa mënoo sëy surtout ñàkk kersa bu la dara safut mënoo sëy boo siisee nag waaw boo siisee gën a bon kon sëy nan moo koy gunge si sa mhm. àdduna ngeen ah. def am continuité yéewél yéewél déglu leen xale yi ak mag ñi sax mag ñi xamul dara déglu leen pour ngeen joxe <laughs> exemple kii ci kii di di di jëlee ci moom di jox seen doom am na nañu xamul dara jàmm hmm? jàmm jàmm set set waaw jigéen da nga war a set moo tax am na clip bu Kumba Gawlo bu may gis Kumba yëkkati poxotaan yi ma gis fii set wecc ma ne Kumba Gawlo set na jigéen da wat sa poxotaan ba mu set wecc wat foo xam ne damay am karaw ba mu set wecc bu la neexee nag am na foo xam ne mën nga ko fa baa mais bu la neexee foofu bu ko fa ba bàyyi ko bu ça sa jëkkër mu sëmb mu ne kuñ koo ma fi ma <laughs> na ko la ko jëla yaa ngi dégg waaw set laa yam mhm. mën a togg mhm. mën a fóot mhm. mën a bale ñi may dara yu weex waaw sama jabar waaw ñi me bagage biir néeg mm-hmm. Mm-hmm. di déclaré guerre ci biir néeg dakk mm-hmm. uh-huh. digg lal bi te lu sa jëkkër jox nga delloo ko léeg-léeg may daw sax eh, waaw li naan góor góor góor gis nga góor boo ko ñimee ci biir néeg day reculer day reculer ah. waaw soo ko jëlee ni ko mën añ yow daw ma saala yaay ndeer e day dem ba mënatul day reculer. te yaay fa la mbëggeel bi di yokkoo de. Eh, nga ko kaay man la. waaw bi paa nag di nga ko jël di nga ko jël. parce que xam naa soxla na di ma rek nekk allo. allo allo. allo. allo allo. allo waaw salaamaaleykum. Ah, yokkal ma bi ñu ngi nuyu di la ziar. ak nu mu tudd. baa yaa ngi si jàmm bu baax. yaa ngi teewlu waxtaan bi yaa ngi ci biir émission Takkusaanu Mbëggeel yow noo toogee nii. ah dendal madame wala <laughs> coroge. non non kenn. du kenn da woote rek pour participer. oui sant waaw. ñu ngi lay déglu noo tudd ak fan fan nga ñu woowee. Mouhamed Diop. Mouhamed Diop depuis. duggoon na kii ndeysaan. ah duggoon naa dégg. Louga ah. Louga duggoon na démb defe naa. ndeysaan mais waa Louga yéen ñu da ngeen mën a sëy de yéen. wuu waaw. ah. Pa Louga Saalum Saalum. mu ne. ah. Saalum Saalum ma ne. Saalum Saalum la waaw Saalum hmm. mais ba tey Saalum Saalum yi aussi ay sëykat lañ de. waaw di ci bëggee Baye Diop Saalum Saalum bu mag. boobu mais yow looy xaar pour yeew soxna. man. wala am nga. non teel na ko war. amagoo. waaw teel na teel na. na mais soxna du teel de. sëriñu mag yi nee nañ. Euh, nu tudd xale bu góor dafa war a gaaw takk soxna. ndax xéewal yi gën a ubbeeku. ah waa Aïcha ñu bàyyi la nga participer ci émission bi ak Mbodj Mbaye. waaw ah, maa ngi lay ziar yëpp. Mhm. waaw di ñaan yàlla. jërëjëf man moom sama problème daal mooy dugub daal. Mhm. ndeysaan ñoo ngi lay dugg rek barke Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. waaw na ñëpp ñaan rek képp diine. ñëpp ñaan daal waaw ñëpp ñaan daal ci bi ñëw. ci ci ci final bi ah. waaw te ñëpp ñaan. incha allah. incha allah ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di yow kan nga euh, mu ñu mu dajeeg ñun incha allah dimanche. man moom comme démb bi a ngi ci sama ah, ma sax li mu wax mais dama ah, ah ok ndeysaan. léegi yow dala doon laaj ak Égypte. kan nga bëgg ah. favoriser bu ku ci gagné mu ñëw tasanteeg Sénégal dimanche Diego dama laa bëgg dimbali ma bu ma rey sarax ma ngir yàlla waaw. non dëgg laa ku ku baax na. ok kontaan nañ bu baax sëñ bi. oui waaw rek man ku nekk sa yaay nga bëgg. allo allo. waaw waxoon na ko démb nee na yaayam la bëgg amul jabar. ndeysaan yaayam la bëgg. dina takki nag. voilà di nga takki. <laughs> di nga mës a takki nag saalum saalum boobu. te di ñu may jàmm ndax di nga takki. waaw Sofia nuyu Baye Diop borom Paal saalum saalum bu mag. boobu Baye Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax borom Paal waaw di nuyu tamit sëriñam. ndeysaan Cheikh Fallou. Mhm. Mbaye borom Ndar. daf ñuy ñaanal di ñu suivre macha allah amiin ak xaritam Alika. Alika ñaanal. ñaanal sa borom kër Baye Diop dinañ ko seeti. incha dinañ ko ñu tolloon nga set. waaye kii jéego balaa loolu. Mhm. téléspectateur yi fi ñu toll xam naa ñu ngi toog di seetaan. waaw ndax Mbodj li muy wax ni dafay dugg si xol. waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo dend ak seen jëkkër wala ñu toog dend ak seen jabar. Mhm. nañu def seen i de dédicace. très bien ko ci li nga xam ne mooy 78. 463 34 15 ñu